mu ngoog dellu rafetlu seen ànd ak programme mu Leral TV comme ni ñu defee bu nekk li ko dalee nag altine jàpp ajjuma tey ci alxames bi dañuy dalal Major Kandji comme ni ngeen ko gisee ci affiche yi 12 minutes chrono dellu si fukki minutes ak ñaar ngir ñu wax ci actualité bu réew bu Sénégal Major am nañu bette dalal la. mais kontaan nañ ci invitation bi comme ni nga waxee rek 12 minutes chrono donc le temps est court. Hmm. bien entendu

mais sans connaître les, les contours. Mais qu'est-ce qui va se passer hmm. Le jour J, par exemple, lors, après les parrainages, vous allez voir qu'il y aura, il y aura des doublures. Donc les petits partis là, et que voire même d'autres partis qui étaient en intermédiaire, mais ils seront fort clos parce qu'ils n'auront pas un parrainage normal. Tout sera des doublures. Et après, qu'est-ce qui va se passer D'ailleurs, on va dire que c'est pas vrai. Il faut jouer le jeu. Une population qui fait dont les, les, on, a, on a même dit que les 75% sont parce que des mineurs, des, gens, des enfants, ça, ils ne mm. votent pas. 35%, si vous enlevez ça de 18, donc vous divisez par à peu près 3, 4. Donc il y a, y a, à peu près 4 millions de personnes qui, qui, qui, ont, qui sont à l'âge de voter. Mm. Ces 4 millions de personnes, si vous les divisez par 236, mais faites la division. Mm. Euh, combien, de combien de personnes aura chacun de ces partis loolu mooy seen problème ñoom moo tax Sénégal mujj dañuy wàcc yoon yi ba pare mujj di kaas. alors parrainage bi major yaa ngi koy wax léegi ci say kaddu euh, est-ce que jàpp nga ni loolu mën na doon filtre bi ñu war a mën a soxla élection présidentielle. bi de non mais mënuñu ñooñu même même même dix personnes duñ ci génn wala cinq. parce que déjà ñoom sax dañoo gën a affaiblir la chance de participer aux élections sax de de des autres partis. c'est-à-dire finalement ren boo bu demul ndànk ñaari parti ñooy dem élection wala ñett parce que <laughs> ñi ci des ñëpp wóor na leen ne ay doublure la ñuy indi. parce que y a des gens qui ont l'habitude de voter. Hmm. et c'est ces mêmes personnes ñooy demande parrainage. parce que Sénégalais yi c'est pas vote bi ni nga koy dégg dafa ñoom habitude de voter. y a des Sénégalais yoo xam ne duñu voter jamais dañuy wax nii di coow ba bu matin naan ko gagné. donc loolu moom risque bi bu ñu defee deux cent quelques partis ñu dem parrainage man maa la wax ne on pourra on peut même avoir des problèmes pour avoir trois partis qui vont aller dans les de la situation actuelle. au vu bi. d' accord euh, bu ñu wax ci parrainage boobu Ousmane Sonko ba tey jotagul fiche de parrainage am même si encore une fois tey on a eu des informations comme quoi que ne Ayib mm-hmm. Daffé dès maintenant euh, direction générale des élections pour jël parrainage am Ousmane Sonko ba tey mënuñu ko jox ay parrainage am est ce que jàpp nga ne loolu moo war a am même si Sénat eh, joxe na ndigal ngir ñu jox ko ay parrainage am. Sénat a invité. n'a pas ordonné et n'a pas la capacité juridique ni mais sou réserve qu'il n'y ait pas mu bañ a am incident de droit. oui il a bien c'est là li wax c'est clair ah. bien sûr incident de droit et problème juridique. problème bi mooy c'est très simple pour nga comprendre ko dafa mel ni un fonctionnaire qui a été suspendu ou bien un fonctionnaire qui a été suspendu par par service am radié par son service ou suspendu nga dem ministère des finances direction du budget direction de la solde nga jox leen sommation de lui payer salaire mais éliminer l'UTIS ni day am benn incident de droit boo xam ne tant que réglé woo ko doo mën a fayu c'est la même chose il a été radié euh, mesure bi ko radié il faut qu'il statue ba mesure boobu joxe sa réintégration sur les listes hautes pour que mu mën a dem jëli liste de parrainage. mais juge bu Ziguinchor waxoon na. nañ ko dugalaat non li mu moom da ko wax vaguement rek ci saisine bi mu am. c'est-à-dire mais saisine bi mooy moom on lui a demandé de lui remettre de parrainage de prendre des sur le problème de de de du fait que dañ ko dindi ci liste yi nga xam ne moom la war a bokk élection wala mu bokk ci élection il a été enlevé en quelque sorte du fichier euh, national des élections n'est-ce pas. Mm, mm. léegi nag pour moom mu mën a jël fiche en tant que chef de parti d'un parti dissous aussi pour mu mën a jël fiche autre il faut nga statuer ci yooyu man yàgg naa ko wax gars yi dégluwuñu ma yàgg naa leen wax Ousmane ko pour mu mën a bokk élection il faut qu'il soit jugé. et son parti dissous il faut que le rep sur son parti dissous soit connu et statué ba mu gagné alors là est ce que ma jàpp nga Ousmane Sonko mën na am chance pour bokk ci élection bi mun na au rythme des choses ak procédure ñoom ils du dilatoire au lieu ñu dem concentré ci ci ci leur parti là pour le remettre en sellette. Hmm. avec un rep plaidé ko mais ils font du dilatoire et le dilatoire n'est pas la base fondamentale d'un jugement. dilatoire day retardé rek di indi coow mais dilatoire c' est pas bon. donc au de ce que l'on voit euh, n'a pas des chances pour mën a bokk ci élection présidentielle état bi mais l' état ne dort pas l' mais major vous n'êtes pas le conseil constitutionnel pour dire que. Sonko non non du ne au vu que ñoom rythme bi ñu jël. Hmm. li ñu war a statuer statuer wu ñu que xam nga y' a des mesures conservatoires y' a des de sûreté l' a beaucoup de devoirs et euh, a des prérogatives. c'est pas c'est pas comme une société privée c'est pas autre l'État day agir conformément au principe du droit au principe de l'intérêt supérieur mais l'État même entre nous Sénégalais li ñuy gëmloo nit ñi taxawul État par mesure de sûreté sax État mën na ko jël ci nit du bokk ci élection mesure de sûreté on l'appelle nga xam ne le comportement mesure de sûreté cest dangereux discours dangereux est-ce que am na discours dangereux non non, est tout d'accord moom je veux dire que tout simplement oui. que État bi incrimination du droit oui et que y a des mesures conservatoires qui ont valeur de jugement mooy le fait que ñu ordonné je pense que c'est un juge qui a ordonné qu'on enlève des des des des listes. bien sûr dans ce cas nag c'est une mesure de droit il faut l'attaquer par une par des voies de droit boo ko attaqué ba pare nag ci ngay mën a demander fiche de parrainage bi mooy comme li ma la wax rek munoo nekk ñu suspendre la wala ñu radier la ci sa fonction bi nga nekkoon. nga bëgg a jiitu gars yi bëri bëri lay sol wala nga jëw ci chef kontaan ne ko fay ma sama saa. d' accord Ousmane Sonko bu bokkul ci élection yi est ce que euh, loolu mën na indi tension au Sénégal ce qui est sûr c' est euh, tension mais tant pis pour ñi nga xam ne ñu mais l' waxoon na ne bu fekkente ne bokkul ci élection bi ce sera dans un chaos indescriptible. mais voilà loolooy problème am xam nga booy wax di wax di wax di dajale finalement da nekk ci cumul d' infraction ak concours da ngay mujj da ngay nekk infractionnel xam nga aussi boo ku wax dëgg rek ku wax dëgg da ngay wax fen comportement bi fi amoon ñëpp a ko fekkee ñëpp ko dund léegi nag bi mu demee ba ci biir hmm. am na ñoo xam ne peut-être ñoom seen avenir dañ ko considérer que foofu la nekk am na ñoo xam ne seen avantage dañu considérer que foofu la nekk discours bi nga xam ne moom la sénégal yi teniroon ci affaire seen affaire boobu ñuy def ñëpp dañ leen gëmloo woon ne mën ngeen tekki sans effort hmm. mën ngeen tekki saa ngeen liggéey dañuy nangu xaalis jaamul jox leen ko gëmloo leen yoo xam ne c'est fallacieux mooy li ñu def fii ba maire yi am ñu jël ay maires ay communes sans savoir sax pourquoi sénégalais bon parce que c'est des gens désœuvrés ñoo xam ne ils n'ont pas la capacité de mi parce que ñoom gëmatuñ seen bopp hmm. léegi nag ñi nga xam ne gëmuñ seen bopp wala des fi de la société wala ñu échec wala ñu amul courage pour def quoi que ce mais dañuy ñëw dañuy ñëw di di ànd ak yow normalement léegi nag surtout nag quand quelqu'un qui prend un discours fallacieux boo xam ne day corrompre les gens à la violence vers la violence vers la désobéissance civile gëmloo leen na affaire guéré la képp ku tekk Sénégal yor oto yor kër yor jabar yu rafet dén la ba benn booy sax nee na damaa bëgg boo leen bëggee takk duñ la faale ndax doo am xaalis xam nga yooyu mooy indi problème mu perversion d'une jeunesse c'est comme li ñu naan corruption de la jeunesse c'est hmm. c'est la même chose loolu lañ toll fi ñu toll léegi loolu xam nga yow yaa ngi nekk nekk journaliste am sa ngor li ngay am dara doyul ci mais da xam ne da nga jàng lii la la yàlla yëpp yaa ngi toog fa ci et loolu sax ça a été manifesté par les gens qui parlent kii di dugg ci gaal ñu dugg ci gaal yi kenn ku ci am problème man gis naa ñoo xam ne ñu dugg ci gaal dem Nicaragua ñu dugg ci gaal mais bi ñuy dem rek ils sont partis avec 7 millions nga jógee Mbàkke Touba dem ak 7 millions nga xam ne boo ubbee boutique 2 millions. mais pourquoi cela parce que beaucoup de. mais rien tout c' d' accord avec moi nee nañu Sénégal jeunes yi dañoo manqué espoir na. mënuñu manqué espoir dañoo amul capacité. c' est à dire capacitation la xam nga luy problème Sénégal fondamentalement et les gens d'autres apprennent mal à l'école c'est-à-dire école munoo am sa bac enseignement général da ngay liggéey fenn te demaatoo def yeneen cycle duñ ko def boo demee université tu peux pas a à normalement ci domaine bi nga nekk parce que maintenant nous sommes dans des sociétés d'excellence hmm. où les gens doivent s'affirmer da ngay affirmer da ngay xam dara hmm. Sénégal jànguñu beneen phénomène bi gën a garaaw nag bon ñun dañoo am benn coutume boo xam ne c'est qu'on appelle les daara Et là-bas, c'est ça là-bas où part notre problème. C'est un facteur fondamental, daara. Parce que en ce qui concerne les daara da ngay gis ne ñoom dañuy jàng-jàng ba mu yàgg 18 ans 19 ans ñu ne wàcc na daara mais ñoom ils considèrent leur daara là comme des facultés de droit yu ñu war a liggéey. Hmm. soo ñëwee Sénégal nag léegi ñoom dañuy ñëw rek dañuy dugg ci marché bi. te ñoom bu ñu duggee ci marché bi léegi léegi nag le marché est réfractaire à eux parce que marché bi ñuy def ñoom mooy genre marchand ambulant. ñii ambulant la ñuy mën ñii dem ci taxi ñii dem ci euh, jàngiwaat métier à distance c'est un peu tard. booy jàngiwaat métier day tard. ñenn ñi dem ci euh, ay même ferrailleurs ñuy dugg ci lu ne mais il sont jamais excellents quelque part. léegi nag bu ñuy jaay nag ku ci échappé rek am million wala dem Dubaï ñëw ñu ne doomu daar yor réew mi mais c'est pas une théorie la théorie la mesure et l'éducation doit être générale et que et que voilà que nous sommes aussi il faut qu'on chaque fois attention. parce que y' a deux facteurs de surpeuplement qui yoo xam ne Sénégal da ko am. lesquels mooy lesquels mooy la polygamie un. oui et une. oui une situation. mais le Sénégal est très avancé sur le plan médical tu sais la morbidité infantile a drastiquement diminué c'est-à-dire on a beaucoup d'enfants kenn du dee kenn du feebar Sénégal dañuy faj xale yi dañuy ñëw yaa ngi comprendre. bien sûr léegi nag loolu bu ñëwee et puis y a y a de vie maintenant les gens on, sont dans la longévité le Sénégal a mis le plan Sésame tout le monde a accès à la santé mm. euh, en conséquence da ngay gis ne mais major xanaa loolu moo tax nga bëgg continuité ak Amadou Ba mais bien sûr je sais que continuité moo koy réglé li rupture baaxul xam nga la euh, la rupture est comme un sinistre gis nga rupture bi Sénégal toll nii sinistre la gis nga bis bu amee rupture le le PS e et tout ce qu'on a mis en place ñu yeewu suba teel bale ko donc gis nga sa bopp ci plan Sénégal émergent bien sûr mais est-ce que sénégalais sénégalais lambda bi gis na boppam. non sénégalais lambda mooy kan mooy ki nga xam ne rek il veut participer à rien day toog il est dans la latence il est dans la léthargie le critique il ne n'écoute que la radio il n'écoute les radios réfractaires à l'État et fonctionnement d'un État moi pas de parti ñooñu la ñuy déglu bu ñu leen dégloo nag mën na indi léthargie imagine un sénégalais normal un normal nga yeewu di ataay toog lundi 10 di ataay ci buntu ay ponk li jëm amul kenn koo xam ne dem na jàng menuisier nangam. mais gouvernement bi lan la def pour ñooñu. mais mais le gouvernement met des mécanismes de développement. comme quoi exactement day day promouvoir de l' état promeut les industries et les attire les fii Sénégal non mais fii Sénégal ñu. Sénégal boo seetloo waxuma. mais investisseurs yi déjà euh, maître euh, major ñoom ñooy ñëw pour jël suñu ressource. pour dem ak pas de ressource à prendre au Sénégal je suis désolé on a trompé les jeunes il a pas d' industrie wax. les les les les les phosphates de Taïba ñoo fi génnagum. Hmm. mais le fer n'est pas sorti. Hmm. de de la Falémé. mais yàgg nañu exploité non mais gaz bi ñëwul. leneen ñëwul mais mais li ma la wax. est-ce que gis nga coow bi euh, niveau de Kédougou. mais je sais dem na fa dem def naa fa def naa fa recouvrement ci ñooñu. mais bi ñu demee ñoom li ce qui s'est passé est très simple la la responsabilité sociétale dans une commune bien définie. le cahier de charge de la responsabilité sociétale oui. doit être géré par le maire qui veille à l'application chaque mois. xam nga xam nga ñoom ñooy escroquanté seen biir ba pare di ko jiñ état bi parce que Sabodola man dem naa fa ba gis nga yaa en 2016 17 dañoo mës a def la même chose je travaille pour une assurance et que quand ils ont brûlé les véhicules le signe était une centaine de million Mm. mais après quand on les ne condamnés man je devais aller faire le recours sur eux. Hmm. pour ñu fay rembourser. pour ñoom ñun bu ñu fayee bu ñu fayee Sabodola ñun ñoom ñu ñu fay ñu fay assurance. rapidement ñu jeexoon ñu jeexoon ñu dama demee dama leen mujj dimbale. ba mu ñun man maa mujj def ay rapport def samay pexe. ba sapa de la laisser tomber pour qu'il y ait l'ordre public. mais la responsabilité sociétale l'État n'a rien à voir quand quand on fait les cahiers de charge. la responsabilité sociétale doit le cahier de charge doit être géré et le maire de la ville ça ne marche pas il signale ça au préfet te foofu seen problème bi loolu la. dañuy lekkante seen biir parce que il n'était plus question que ñuy am problème ñoom. d'accord pôle jeunesse Dakar bu ñu ko waxee lan la sa xel ci lan lay jëm. pôle jeunesse bu Dakar. non yaa am na benn pôle de jeunesse bu Aline Badara Sène di gérer. Hmm. Aline Badara. bon donc ki est qui est venu qu'on a fait une drape. jox leen ma Amadou Ba. et que c'est tout ce qui est pôle jeunesse. c'est pour algorithmer la jeunesse. C'est-à-dire pour jeunesse, c'est la formation collégiale des jeunes. Mais lors de lance, du lancement de, cette, euh, de ce mouvement-là, bien sûr, euh, je me rappelle, il faut travailler pour maintenir la paix du Sénégal. Donc, peut-être amna ay menaces yo xamantene mu ngi ñew ci Sénégal ci lu jëm ci euh, Les menaces nous ne sommes terrorisme. On sait la cybercriminalité, c'est une menace Euh, en passant la, la, la délinquance transnationale organisée et le crime organisé transnational. Mais est-ce que jàpp nga ne Sénégal pare na pour non, faire face à ces c'est la gendarmerie qui ferme les frontières et que la gendarmerie est en train de monter crescendo pour pouvoir éradiquer tout acte extérieur et de lutter drastiquement contre euh, délinquance, vol de bétail, trafic de drogue, trafic des armes. mais xanaa sax mooy dañoo fàtte dañoo fàtte sécurité côte oh, à partir de Goundiouane Town dañuy jël cap mel ni ku jëm cap vert doog a contourner en haute mer et je conseille ci goos yi dem ci géej gi actuellement ku ci dugg da ngay gelé doo dem ku dugg gelé ti waa mourir ah oui oui sauf que nga nekk xanaa lébu am habitude bi. d' mais fan yi moom ku dugg rek ci géej gi moom di jéem a dem da doo doo yegg. Major on termine exactement ci politique Amadou Ba est votre candidat. Mm-hmm. Amadou Ba il est le candidat parce que Amadou Ba c' est un candidat stratégique. c'est là c'est un candidat. pourtant Amadou Ba mosul gagné fenn. non non du loolu Amadou Ba du question c'est sa qualité non Amadou Ba candidat crypto personnel la. vous savez dans le monde où nous sommes gis nga banque mondiale ak FMI ak de Bretton Woods. xam ñëw nañ fan yi ils ont critiqué le Sénégal avec trop subventionné on ne peut pas subventionner trois choses qui sont vitales dans un état tiers-mondiste et en de développement. secondo euh, on fait fuir des capitaux, on fait cesser, interrompre beaucoup d'investissements et qu'on dégrade même ce qui a été investi déjà et à perte. Parce qu'on a repris le BRT et le terre. Ce que cela veut dire que les gens qui ont manifesté, ils ont causé un préjudice énorme à milliards au Sénégal. Maintenant, Amoudouba, il a la diplomatie et l'audience sur le plan financier avec les partenaires financiers. Les partenaires financiers, c'est comme des banque Les banques, ils le risque le risque des risques. falaa falaa la politique lañ gis un système de financement de prêt et de garantie dafa am service risque banque mondiale dafa am service risque FMI dafa am service risque les finances les gens qui financent là kii de Bretton Woods dafa am service risque il faut analyser le risque le risque da nga koy analyser en fonction du client à qui tu donnes l'argent le responsable moral ou civilement responsable yóbbu nag ak environnement bii da nga koy calculer léegi nag si tu n'as pas un manager qui est ci est imbibé de ça boo xam ne xam na loolu mën na ko lijjanti xam na ni ñu koy defee xam na les mécanismes ils prennent pas le risque. donc parmi tous les candidats kenn xamul. mais non non moo ko mën. xam nga mais actuellement nguur dafa neex rek. quoi pour ñoom. ñoom nguur gisuñu si lu les faste du nguur. mooy sa jabar di pab pabaane ci xew yor or say doom di voyage ci avion yi yow nga yaakaar ne. foofu mais yaa ngi tooñ sama gars yi de. mais mais mënuñu ko c'est-à-dire nous sommes à un point boo xam ne. oui bu jeexal bu ma bu Macky Sall jëloon keneen su ñoon sax du ci nekk. parce que dañ moo ko jël moo xam mais dalul benn ak ñoom xam nga yaa la technique financière dafa am technique de diplomatie étrangère il faut convaincre l'art de convaincre amul Ba il a l'art de convaincre loolu ba avantage. mais il n'a jamais convaincu. non non l'art de convaincre des partenaires et il est un manager sur le plan finance euh, sur le plan sur le plan investissement et il a de l'expérience et il a l'audience vis-à-vis de ce qui nous intéresse c'est ça le problème et là ça vaut plus que. ça vaut même de ne pas faire des élections laissez-le continuer. est-ce que Amadou Ba dina gagner. non mais premier tour la ñu gagné Sénégalais il commence à la prise de conscience Sénégalais yaa ngi xam ne ñii duñ dem. gis nga ñu doon ni di wax. moi j'ai j'ai été à occasion Makka ak yooyu mais gis naa waa Espagne waa Allemagne waa tout. Hmm. quand on a beaucoup discuté sur place à à à la Mecque et tout ça mais beaucoup ont ont de cap. d'accord et puis voilà que pour pour leur parler Amadou Ba n'est pas l'ami de Macky Sall Macky Sall l'a choisi. pour tout le projet. qu'il a en place. en fonction des exigences de ce projet, de la réalisation, de la faisabilité, il fallait qu'on rende ces projets smart. Smart, oui. Ouais, smart, oui. spécifique, euh, mesurable, dans le réalisable à terme. Et pour, le, pour ce faire, il n'y avait qu'Amounouba qui pouvait respecter les principes dans la forme. Dans le fond, il, il on n'a pas le, il faut le prendre et il faut le mettre. D'accord. Major Kadi, euh, Mougok, Rek euh, Ngeen Kadi, nga xam moom la daal di yëkkati 12 minutes chrono foofee lañ koy daal di yemale ëllëg ak jàmm.